waaye français lan na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal Sénégal ñii génn gàddaay far dem faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu fam nañu saamu i cere bi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gën a lam de doom ji jàll fuuta ñoo del nag almaami abdu buukar mbokk yi ànd ak ñun ci seen bi di xam sam réew tv dellu siwaat nañu di leen nuyu di leen ziara di am mbégte ci ànd gi ngeen ànd ak ñun ak safo gi nga xamante ni bii safoo ngeen ko seen chaîne histoire bi di xam sam réew TV di chaîne boo xamante ni li ko tax a jóg mooy jéem a xamle mboorum senegal nit ki bu xamee am réewam dafa war a xam ñooñ réewam xam goxi réewam ak xew-xewi réewam kon émission bi nee naa leen mën nañ koo def ci jëmm muy une personne mën nañ koo def ci barab muy un lieu mën nañ koo def itam ci ab xew-xew muy un événement kon tey dañu fas yéene ànd ak yéen def émission bi ci barab xamale leen ak barab boo xamante ni barabub Sëriñ Tuuba la muy daarul manaan gi nekk diggante Tuuba ak Mbakke di barab boo xamante ni barab bu bari mboor la barab bu bari taarix la barab bu bari histoire la ci yoonu murit kon ginnaaw bu ñu leen sante gërëm leen waxoon naa leen ni ci lu matul semaine am nañ fii lu toll ci junni abonnement muy dimanche bare weesu altine talaata tey àllarba amaat nañu lu ëpp junni abonnement ndax chaîne bi bi ñu ko tàmbaleeg léegi weer wi xanaa dafay doog a teg ay fan waaye fi ñu toll ñu ngi ci ñetti junni abonnement nous di leen ñaax rek ñi nga xamanteni abonné guñu ñu abonné ngir vidéo bu ñu rek ngeen dal di koy mëna am di leen ñaaxit ngir vous page Facebook di Xam Sam Réew ngeen bëgg ko manam aimé ko sommes cant yi kon dañuy tabbi rek ci émission Xam Sam Réew tey ñu jëmale ko ci barab fas yéene leen xamale ak daarul manaan barab bi nga xamante ni ku tedd ki xadimu rasul cheikh Ahmadu bamba bi mu tàggatoo ak borom daarul moxti ca mbakke bari ca jolof fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar junni ak ñetti téeméer ak fukk ak ñett dëppoo woon ak le 10 août 1895 bu dee ci ati jullit yi sëriñ bi def ci tukki bi juróom-ñaari at ak juróomi weer ak fukki fan ak juróom-ñett ndax juróom-benni fan ci weeru Shahban la wàccaat ci waaxu waaxub musaasiri di poorub ndakaaru bi kon barab bi ñu leen bëgg a xamale mooy barab bi nga xamante ni bi sëriñ bi di bàyyi ko Gabon fa la borom Daaru Muxti nekk ak njabootu sëriñ Touba gépp xam ngeen ni sëriñ bi bi mu tàggatoo ak borom Daaru Muxti noonu ma ko waxee ci dat yooyu ca Mbakke Bari bokkoon na ci lim ko dénkoon ni ko sëñ Abdul Ahad Mbakke yàlla nañu ko sunu borom fayal nettalee ci woote màggal Touba 1979 Serigne bi ne woon na borom Daaru Muxti. sama njaboot gi rekk laa bëgg nga yoral ma leen foo ma leen mën a yorale ci réew mi ci senegal loolu moo tax ginnaaw bi sëriñ bi demee boroom Daaru muuti ci ay xat-xat ay jafe-jafe ànd na ak njabootu ku tedd ki xaatimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi ko Mbakke Bari ca Jolof ngir ñëw Mbàkke Bawol yoon woowee sunu borom taw fii xalal nonu ci ndax Massaer Syll mi wajuru bàcc Syll sunu wajur keroog bi sëriñ bi di tàggatoo ak borom daaru bàyyee ko njaboot gi moom keroog la jëbbal boppam borom daarul mooti moom la sëriñ Moussa Kar yi wax ni bisub keroog la ko sayar sahidu jébbal mbiram fa baari mooy sahidu texeeg murit yi la turam mooy seere moo njëkk jébbulu keroog fa bari yàlla dogal na ba ñuy bàyyi ko Mbàkke Bari ngir ñëw Mbàkke Bawol moom sëriñ Massaer Syll euh, moom la borom Daarul Muxti boole ak sëriñ Fallilu Mbàkke ni ko yaa koy yóbbu ba Mbàkke Bawol kon li ñuy wax léegi maanaam yaa koy transporté maa ngi jégglu ci waxin wi Euh, sama waajur yor na fi leetar yoo xamante ni mu ngi fi euh, sëriñ Fallilou Mbakke doon ko bind sëriñ Massaer Sylla di ko fàttali di ko wax ni ko yaa ma tungoome Mbakke Bari ba Mbakke Bawol muy jëmm ji ñu jàkkaar lool ci nataalam di ko xamante ni mook borom darul moxti ñoo bokkoon nekk ci kër keppaaru sëriñ bi ndax waaye juróom sëñ Mor Anta Sali la ko jébbaloon ca Pataar bi sëñ Mor Anta Sali làqoo mu ànd ak sëriñ bi ak borom daarul moxti Mbàkke Bawol Daaru Salaam Touba ba Mbàkke Bari sëriñ bi di dem mu jébbalu ci borom daarul moxti kon bi ñu bàyyi ko euh, Mbàkke Bari ñëw Mbàkke Bawol borom daaru moxti ma ko joon ca gannaaw Mbàkke foofe nga xamante ne fa la barabu Cheikh Mouhamadou Yaddaali moom sëriñ bu mag bi nekk foofa tawat amoon na fa ba Cheikh Moustapha al Karim tawat Cheikh Mouhamadoul Amine Baara tawat ci la borom mu ci jëfe woon jëfam ju rëy mooy bi mu jàppee julli ñaari rakka ni sunu borom maa ngi lay ñaan bu fekkee njabootu sëriñ Touba gi mu ma bàyyee dafa naralaatu a jëlal sama bakkan ak bakkanu soxna faat isa Diop sama waajur ak bakkanu Modou Awa Balla mi ma gisagoon ci doom waaye Serigne Touba bu mu ñëbb si mukk ma di ko laaxan gi naan ko barabu nga ne barabu nga ne barabu nga ne kon bi loolu xewee ci la woolu Serigne gi di waajuru Serigne Makhtar Massoo gi mu ñëw defal ko listixaar xamal ko ni ko dafa ci jinne danga nga fiy jógee te dem sanc ca guy gële muy guy nguraa guy nguraa boo jaaree ci yoon wi nga xamante ni moo jëm ci héliport bi boo demee bay dugg Mbàkke Bawol jël ci sa ndeyjoor muy yoonu Ndakaar wi rek diggante héliport bi ak Mbàkke Bawol foofu moo doon guy nguuraa foofee fala Cheikh Sidil Maxtaar Serigne Cheikh Awa Balla ganee jamono en 1898 kon borom daarul moo bàyyi ko na guy nguraa ñëw sañc bàyyikoona bàyyi ko na foofee ca gannaaw Mbàkke Bawol ñëw sañ ci guy nguraa guy nguraa googee ba mu ko sañcee jamono jooju mu yetti at yi sëriñ bi njëkk a def gabon ci Zaïre kenn xamul ci sëriñ bi dara amuñu li tubaab di wax ay nowelam xabaar yu bàyyi ci sëñ bi bu dul ci baatin ba Abdoulaye Ndour bàyyi ko sëriñ bi jox ko ay leetar ngir mu jox ko borom Daarul Muxti Abdoulaye Ndour moomee ba muy dellu Gabon fekk na Cheikh Moustapha El bind kaamilam bu njëkk moom Abdoulaye Ndour moom la borom Daaru Mufti jox kaamilub Cheikh Moustapha moo ko yóbbul sëriñ bi Gabon moom la sëñ Moussa Ka di wax naan ba Abdoulaye di dellu min Conakry maam Thierno jox koy addiyaam ak a bari booleeg mbindum taawam ba am di Moustapha Cheikh Bamba yor ko muuñ ni Thierno xat wa fa lettre yooyu nag daf caa am bopp sëriñ bi dafa wax borom daarul Muhti ni ko nanga dem fa ñuy wax guy tàggoo wax nañ ni bu masaana ñëw ci nijaayam sëriñ bu soobe bu koy gunge ci guy googee fa la ñuy tàggoo ñu tuddee ko guy tàggoo mu ni ko nanga nga fa dem sanc fa ab dëkk te tuddee ko daarul manaan dafa am ñu bari ñu may dégg ñuy wax ni sëriñ bi sanc na daarul manaan doog dem ci géej gi loolu njuumte la daarul manaan ci ndigalul sëriñ bi la ko borom daaru muxti sanc waaye booba sëriñ bi mag nga ca tukki ba ca Gabon jëlee naa ci sa euh, sëñ Cheikhouna Lo yàlla na sunu borom dolli yërmande ci moom moom sëriñ Makhtar Bintaloo mu ni ma en 1900. la borom daarul muxti sanc daarul manaan ne ma sama waajur sëriñ maxtaar bintaloo moom la borom daarul muxti woolu mu ñëw mu ni ko demal ca sa daara boo demee nga jël fa safur la nee na borom daaru muxti dafa woo sëñ maxtaar bintaloo bi mu ñëwee mu ni ko demal ca guy googee ñu wax guy tàggoo boo demee nga nisër fa ab dëkk sëñ naa nee na waaye juróom booba jëwriñ la mu dem ca daaraam jël fa ay donga ànd ak ñoom ngir dem ca guy ga di guy tàggo nee na way juróom sëñ Maxtaar Bintaloo booba yor na jaas yi joo xamante ni mbar ma dañ koo ëw ëw bu rafet nee na ba ñu demee di tàmbali liggéey ba sunu borom xiin xiin wu ñuul kukk mu xam ni bu taw euh, mbarom jaasi ji bu tawtee dana yàqu sëñ Maxtaar Binta Lo bañoon mbarom jaasi ba bu tawte yàqu moo tax mu gas ko suul ko kon barab bii di daarul manaan borom daarul moxti mu ko sanc en kon ñaari at la fa am sëriñ bi doog a dellu si Sénégal sanc ba itam na mu ko sanc woon tey boo demee Daarul Manaan kër sëriñ Touba di nga gis fa ko kër borom Daarul Muhti féete jëlee naa ci alhaaji maam Thierno di xalifa sëriñ Cheikh Awa mu jële ci waajuram nee na borom daarul morti diirub sëriñ bi tukki bàyyi ko njaboot gi musta jaxase ak njabootam ak njabootuk sëriñ Touba gi daarul manaan googu bi ñu ko sañcee kër sëriñ Touba gi maanaam fi borom daaru muuti nekk day def kees ci ndeyjoor def kees ci càmmooñ ak kees ci digg ci digg bi nee na kees gi nga xamante ni moo nekk ci ndeyjoor njabootug sëriñ Touba gi ñoo fay féete kees gi ci digg bi bagage yi fi sëriñ Touba bàyyi woon moom la fay def wut ponkal yoo xamante ni ay ay e, yoo xamante ni seenub liggéey du dara lu may di saytu bagage yi bu ñu xëyee fomp ko xool mbaa amutug max mbaa dara yàquwu ci keesu càmmoñ gi fa lay dëkkal njabootu boppam gi nee na bis bu set danañu wut ab gàtt def ko ay xéewal cerey lay ngir keesug ndeyjoor gi di njabootu sëriñ Tuubaa gi keesug càmmoñ gi di njabootu borom daaru mooti moom lu ñu am rekk xéewloo ko te nee na kenn du bàyyi ko ci keesu càmmoñ gi njabootu borom daaru mooti gi nekk ngir dem ci keesug ndeyjoor gi nga xamante ni njabootug sëriñ Touba ga fa la nekk kon boroom Daaru Muxti diirub li sëriñ bi tukki ba ni mu dellu si musta jaxase njabootam gi ak njabootu sëriñ Touba kon en 1900 bi mu sañcee Daarul Manaan noonu nu ko sëriñ naa Lo nettalee foofe nag fa la borom Daaru Muxti nekk ak njabootu sëriñ Tuubaa gi bëni sëriñ bi bàyyikoo ko Gabon dellu ci Sénégal wàcc Ndakaaru jaar Ndar ba ume fa weeru koor wa wala Louga bàyyi fa ñëw sànnoo si ba wari jaar ci réew mi di tukki ba ni mu egsi Daaru ñaar fukki fan ak astafurlah ñaar fukki fan ci weeru kori maam Cheikh Anta ganale ko ngan gu siiw googu nga xamante ni taarixu yoonu murit dootuñu ko fàtte ngan ga juróom ñetti fan la sëriñ bi ña ko sëriñ Musaa Ka indee ci gasaawu sakkooru jéeri ji altine di ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru kori wa ci la sëriñ Touba ñëw ci barab bi nga xamante ni moo digle woon ñu sanc ko muy daarul manaan fekk fa borom daarul muxti nag ak njabootu sëriñ Touba gépp Cheikh Abdoul Khoudous yàlla sunu boroom yokki leeram te dolli ko yërmande nee na sëriñ bi bi mu ñibbisee bagage yooyu nga xamante ni wax naa leen ni dañoo wutoon donc yoo xamante ni bii saytu bagaas yi rek mooy doon seenub liggéey nee na bi sëriñ bi ñëwee borom daaru Moti génne bagage yi fi sëriñ bi bàyyi woon lenn lu ne na ko sëriñ bi bàyyee woon nee dem nañu ba desiti suukar ak desiti warga yoo xamante ni ca Mbàkke Baari la ko sëñ bi bàyyi woon ba muy dem moo tax sax am na ñuy wax naan euh, loolu woykat yi di wax naan maam Thierno dencaloon daam attaaya ja ba daam dem géej del si euh, Touba Thierno sagam dejut dafa am sax ñuy egg ba naan warga la woon woo da koo xelli woon <laughs> ba bi sëñ bi ñibbisee warga wi e, seddul tàngul waaye demewul noonu du warga wu ñu togg ba noppi Cheikh Abdoul Khoudous nee na desiiti suukar yi desiiti warga yi xalima yi ñu sëppoon ci daa yi day génne di génne ba yàgg nee na sëñ bi ni ko Ceerno Ibrahima mu ni ko Mbakke mu ni ko man de dama xamul lii nga def nii danga amoon ci loo jàpp wala jàmburee la ko tax a def maanaam li sëñ bi bëgg a wax rek mooy bu fi bàyyee desu warga ak suukar boroom daarul moxti war na koo mën a jëfandikoo waaye li ko sëriñ bi bàyyee woon ba mu ñëwee noonee la ko fekkewaat moo tax mu ni ko dama xamul lii ak maandu la walla dangaa am loo jàpp kon daarul manaan fi sëriñ bi fekk borom daarul moxti keroog bi sëriñ bi ñëwee itam bàyyi ko daaru boroom borom daarul moxti mbubbam la génne dal di dem boo demee daarul manaan muy fay njabootu eh, Cheikh Abdourahman Mbacké jàmbaar ji nga xamante ni moo ko yeesalaat ginnaaw waajuram danañu ca ñëw ca kanam ci yeneen épisode moom la ñu tuddee woon kër dongo yi Cheikh Moustapha ñoom foofu la ñu nekkoon borom daaru mooti daal di génn kër sëriñ bi dal di dem foofee nga xamante ni moo doon kër donge kon sëriñ bi nekk na ak borom daarul darul daarul manaan suwal booba mu ngay jeex ndax ci ñaar fukki fan yi ak juróom ñett benn fan wala ñaari fan la fa ak sëñ bi sol xeeta sol hijja muharram safar rabiul awal di juróomi weer maanaam weeru koor yu booba benn fan wala ñaari fan a ca des sëriñ bi am faak borom daaru muuti diggi tëbaski tamxarit diggi gàmmu fukki fan ak juróom-ñeent ci gàmmu ga ci la sëriñ bi génn ngir dem gànnaar kon sëriñ bi li ko dale ci 1895 ba 1927 féex gi nga xamante ni féexal nañ ko ko fi nekku ko ci loxol nasaraan bi ndax booba ñibbisi na ba jaar ci le gouverneur Merlin nekk ak boroom daaru muuti ak njabootam gépp daarul manaan bu julli jotee borom daaru muuti mooy liqaam sëriñ bi jiite ci jàkka jee tey Cheikh Abdourahmane Mbacké tëdd te ñu uufal ko taawam ba di Serigne Modou Mbacké moom Cheikh Abdourahmane kon sëriñ bi fa la nekk borom daarul Muxti ci njeexteel kori wa ba ca gàmmu ga nga xamante ni gàmmu gi bu Daaru Muxti di def nga xam ni guddi gi yonent bi feeñoon saa bu dellusee gàmmu la ci Daaru Muxti foo gàmm googee ci la sëriñ bi digale woon borom daal Muxti mu gàmmu ren di ci téeméeri at ak fukki at ak juróom benn 1903 ba 2019 guddi gu jot di guddik altine gi yonent bi feeñoon gàmmu la fii ci daarul Muxti kon barab boobu di daarul manaan sëriñ bi ñibbisi na nit ñaa ngi fàqe fu ne ndax la ko yóbbu woon Gabon mooy bi nit ñi tàmbalee di jébbalu ceddo yi ak ñoñ àddina yi fiiraange tax ñu kalaame ko ak nasaraan bi nasaraan bi ni da koy yóbbu Gabon ba ñu fàtte ko ndax foofa kenn du fa gëm la muy woote sëriñ bi ñibb si nag taal bi gën a takk jëm kaw fenn fu ne ay nit di fa fàq di ko fekk si daarul manaan aha kalaamekat ya dal di jógaat nag feddliwaat seenug laxasaay kalaame yi jóg ba ñu tàmbalee wooluwaat sëriñ bi ndar sëriñ bi gàntal bokk yi kon fii laa koy yemale ci épisode bu njëkk bi nu ànd ak yéen incha allah ci la xew daarul manaan yépp ba ñuy woolu sëñ bi sëñ bi wujiwul xare bi ñu waajaloon ngir song daarul manaan ba ni sëriñ bi génn ci le 13 juin 1903 incha rabbi danañu ci ñëw ak yéen ci épisode yi nekk ci suñ kanam ñu di leen sant di leen gërëm di leen fàttali rek abonnement yi gannaaw ba ñu leen sante mu doonoon seen mbokkum taalibi liggéeyaa ko nu borom Darou Mouhty Mbaye Guèye Syll ma di leen sant di leen gërëm te di leen dox dox daje ci épisode bi nga xamante ni bi mooy topp ci bi ngir xamle darul Manaan waaye français lan na gooru Sénégal ñi ñu dugal ñu dugal ci Sénégal ñi génn gàddaay far dem ba faatu ñu joxe seen gànnaay ndax ñu yaatu xamnañu saamu i cereefi soose gabang boole koog baraama siise tala ba ñi ke imbulaañse daf ko ci laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbeere yi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami abdu buukar